li ñu foncier un titre d'état un titre d'état n'est jamais créé sans décret présidentiel et concernant ces deux titres d'état qui font un total de 159 hectares n'ont jamais eu de décret présidentiel donc lii wane ne euh, pick-up le président de la président Bopam, indi décret Bopam, fal Bopam, jël suufu ak tamit ak njiit yoo xam ne ni ñoo nekk ci état bi di ko dimbali ak di ko dooleel ba mu implanté wu nangu ay suufu jàmbur. concernant nag 72 hectares bii bi fi des Descos di wàcc di toj musul am décret présidentiel buy wane ni ñii dañ fi war a jóge mosul am décision de justice boo xam ne nii dañ ko wax ne ñii dañ fi war a jóge donc dañ leen jaay doole parce que pick-up yor na xaalis mën na teg xaalis sur la table. am na doole étranger la na yaakaar naa ne li mbëtt bëgg la bar bëgg ndax pick-up ni mu dem ba xool ci suuf si ba bëgg ko lu ko raw la ko seeni borom xool gis ko ba nefi ci seeni maam ak seeni baay ba nëgëni yàlla tey ji te nanguwuñ cee wàcc léegi nag borom tool yaa ngi nii toog daa am lenn rek lu ma leen di laaj préfet nee na daa am ay borom tool yu ne ñoom nangu nañ cent millions yi pick-up di fay ma bëgg na ngeen tontul seen bopp waaw wala déet leneen li ci tege moy fictif ci titre foncier en faux usage de faux en écriture publique ci administration bama dalé nek ci souf ba léegi maa koy do gis maa koy do a té te gi la xewé 159 hectares ngeen ñëw nangu ay soufu jàmbur toj ay keuru jàmbur jël ay xalé dajalé leen bañu 49 tëj leen pendant plus d'un mois sur du faux pour lu neex ay privé fi la xewé bir dugaar li ñu bëgg nag te waa dugaar bëgg ko

balaa pick-up di fi teg benn borne balaa pick-up di fi tabax état ci boppam mooy toog ñooy exproprier ñi fi am tool fay leen seeni xaalis ñoom ñu ñëw liggéey am bon et bon et due forme loolu nag moo amul comme yëf yi jaarul yoon faw ñu wax toog waxtaan waaye nag mooy waxtaan da waxtaan ci liy yoon mooy ne que borom tool yi bëgguñu 100 millions nan nga ne damay den indemniser 100 millions sur 72 hectares 72 hectares fii ci Diamniadio amaloo ci wax lu 100 millions. Depuis que up mi parcelle bu ne 7 millions 7 millions pare bëgg a 100 millions kan population est nee nañ nous ñoom bu ñu jëlee parcelle di 1 3 millions 4 millions moo leen 100 millions on demande à Pickup d'arrêter les travaux et sous 72 heures parce que bu conflit est ba nga xam ne reconnu par l'État ne dem leen ngeen top si vous dee des la ñu bëgg nañ ko ne na taxaw ba pare ñuy bu on va se retrouver comme d'habitude comme ni ñu avec les acteurs la suite léegi nag toog fii ci journaliste yi ne suba nangam la ñuy def suba ñu kar la bañ leneen lu